feddale suñu kollere ci yeen ah, ñun man docteur Mansour Diop la tuddu euh di yor clinique bu tuddu clinique Khadija ñu ngi ñun aussi ay ndongo président Ousmane Sonko lañu ñu gis taxawaay bi muy taxawu sëñ eh, sëñ Ousmane ñu ñu ne daal nañ ñëw feddale suñu kóllëre ci yow jàppale la bu baax ci liggéey bi te fas yéene tamit liggéey bi bu mu yen yem ren ni ko ni ñu docteur ñas ibile yoon eh, eh, bunt bi ba ñu jaar fi ba ñëw liggéey noonu lañ ko fas yéene toppee saa yu waxtu yu jotaatee wala yeneen anam sax yoo xam ne soxla na liggéey buñu ñu tamit ñu ñëw tamit japp ci liggéey bi rek inshallah di la gërëm di di la sante di di sàkku ci yow nga ñaanal ñu sénégalu jam sénégalu naataange jëf mbaté merci Mm-hmm amin amin, mu ne sant nañ leen bu baax ci taxawaay bi neen ci yéene ci ak taxawaay bi mm-hmm. nee na liñ ci amin, ci ñaanal mm-hmm. yàlla na ko suñu borom amin amin amin amin amin amin amin amin amin salaamaaleykum euh, man la docteur El Hadj Mansour Diop dañ fi ñëwoon tey Touba ci turu clinique Khadija pour organiser fi benn camp de couverture médicale euh, consultation médicale gratuite yoo xam ne dañ ko accompagner ak maye garab ci ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ ci màggal bi te soxla ko euh, jot nañ fi gis nag ay xale ak ay mag. ñoo xam ne xëy na bi ñuy ñëw ànd nañ ak tawat ñu ñun tamit ñu accompagner leen ba jàppale leen ci saafara bi ci biir euh, liggéey bi aussi léeg-léeg nga am ci ay situation d'urgence yoo xamante ne da lay obligé nga évacuer malade bi pour yóbbu ko foo xamante ne euh, hôpital boo xamante ne euh, prise en charge bi dina gën a mucc ayib donc ñu ànd ak suñuy collègues ak suñuy nawle yoo xam ne vraiment dañ leen di remercier équipe boo xam ne docteur euh, Mbaye Sène moo ko jiite ñu ànd ak docteur Awa ak yeneen membre équipe bi donc ñu leen di gërëm di leen sant ci teewaay bi bi ñuy ñëw fii <coughs> dañu jaarale euh, mbébét bi ci euh, unité d'alerte et de surveillance épidémiologie bi nga xam ne professeur Lamine Gueye moo ko jiite euh, professeur euh, Massamba Diouf topp ci ñu faciliter ñu accès bi ba ñu boole ñoo koo xamante ne daanaka mooy doomu sëriñ bi ci wàllum santé muy docteur Niass donc ñu ñëw ci kër sëriñ Cheikh Saliou Mbacké sëriñ bi nga xam ne ñëpp xam nañu taxawaay bi mu am ci yoonu Pastef taxawaay bi mu amal président Ousmane Sonko di ko dimbale di ko ñaanal te di ko yedd ci lu bëri def ko doomam ñun ñu gis loolu mu rafet ñu ne ñun tamit war nañu am nan la ñuy taxawee ba dimbale ko ci liggéey bu muy liggéey ci yoonu yoonu murit bi donc ñu ñëw ànd ak euh, docteur Niass mu yombalal ñu dugg bi pour ñu jàppale euh, sëriñ bi ci liggéey boobu noonu di ko gërëm aussi di ko sant bu baax a baax ci accueil bi mu ñu accueillir ñaan yim ñu ñaanal ak ñaan ñaanal Sénégal ñu ko ci gërëm di ko ci sant bu baax a baax a baax a baax. waaw tey bi mën nañu wax ne am nañ ci mbégte lool ndax euh, li ko waral xeeti nit nañ ay doomu aadama ay taalibe yi ñëwoon magal si bi ci njëkk mooy si yoon bi bi ñuy ñëw rek bi ñuy waaj a dugg Touba lañ gendarmerie interpellé ci benn kaw accident boo xam ne démb la xew malaat bi sonoon lool. lotoon ba ay euh, ay agriculture ay béykat ñoo ko fekk won ñu ko ñu jàppale ko lool def li ci war ba dem jëbal ko sapeurs-pompiers ñu évacuer Diourbel bu ñu egg see Touba tamit kër Sëñ Saliou suba si ba léegi ñu ngi liggéey ñu ngi consulter ñu ngi jot euh, ñi nga xam ne sonn nañu mooy ay urgence yu ñuy lever jot nañ tamit ay malades yi nga xam ne dañoo am blessé blessure par accident Ni nga xam ne tamit euh, ay gaañu gaañu yuy jóge ci ay mala te ñoom ñëpp ñu taxaw leen euh, taxawu tamit ñi nga xam ne ay pèlerin lañ ah, ñëw pour consultation am ay maladies chroniques ñii ay maladies aigu. ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu yoroon équipe bi yoroon le matériel qu'il faut euh, indi leen véritablement assistance muy journée wu mbégte à mi parcours ëllëg incha allah ci magal gi le 4 ñu war a eggale liggéey bi fii ci kër sinsali bu soobee yàlla di sant équipe bi yëpp.